Thank you. jangeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi euh, ponk ci gën a fës euh, mbootaay gi ëmb ñi am ay jafe-jafe euh, ci wàllu dégg ak wax ña ngay sàkk nag ñu dimbali leen ci wàllu koppar jumtukaay naka noonu ngir ñu mën a liggéey waaye tamit nekk ci anam yu mucc ayib leneen la ñu wax itam mooy léeg-léeg bu ñu demee ci barabu fajukaay la nga xamante ne moom la docteur bay wax du am ku leen ko tekkil ci anam ya ñu ko xame di xeeti si yooyu ñuy faral nag di def bokk na ci jafe-jafe wax bi ñu jagleel euh, mbootaay googe ak ñi nga xamante ni kon ñooy dund euh, laago yooyu ci àdduna wërngel këpp Barthélémy Diaz euh, samp na ndëndam la wax ngir doon secrétaire général bu parti socialiste loole nag ngir xeexal xalifa Sall la wax mi ngi ko xamle rek ci page Facebook am ak it ab rubrique boo xamante ne nii rubrique bu bees la bu mu ca door bu ñu sëkkandikoo nag ci borom xam-xam bi ci wàllug politique di Yoro ja nee na lu ni mel mën naa indi kon wax rek bu ñu ca yeggee kon ñoom militants yi mën nañ caa weccoo xalaat ci ab congrès euh, bu ñu mën a amal litige foncier di coowal suuf la ñu nemmeeku euh, ca commune bu euh, Dodel askan wa nag nee nañ ànduñu ca projet Afri Partenance bi nga xamante ne nii indi nañ ko fa fukk ca ñoom nag teg nañu leen loxo gendarmerie ba teg na leen loxo gannaaw ñaxtu yi ñu doon def ñeneen ñu doon ñaxtu itam ba mu jaroo leen loon kon ñu wàcc ca mbedd ma muy nag askan wa nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo ca guddomp poste de santé yooyu nekk ca Samine ak yu euh, Goudomp ndax euh, nee nañ ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy faral di faatu lim nga jéggi na dayoo te léeg-léeg tamit aji tawat googee euh, dañ leen di rewle ba Sigicoor mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak mbootaay gi ëmb ñi amee laago eh, ci wàllug dégg ak wàllug wax ñoom nag la ñu bëgg rek fi mu ne nii mooy ñu jàppale leen bu baax a baax ci wàllu financement waaye tamit ci wàllug eh, jumtukaay ngir nag ñu mën a liggéey waaye tamit nekk ci anam yu mucc ayib leneen la ñu wax tamit mooy léeg-léeg bu ñu demee rek ci barabu fajukaay yooyu ni ñu koy waxee dañuy faral di am ay eh, jafe-jafe tey ji nag lañ ko xamle ci ay bis bi ñu jagleel xeetu laago xew googee ñu ngi woon place du souvenir amaloon nañ fa nag ay atelier eh, dañ ci ànd ak Aminata Mbaye Sow objet d'art yu jekk yi ñu exposé fii ci place du souvenir soxna si di Mariam Fall ak borom këram ñoo ko liggéey ci seeni loxo soxna si donte dafa amee laago waaye teewul fi mu toll nii mu ngi yëngatu ci association bu mag a mag bi jàppale ñi amee way laago gi mu amee moom mooy gérer euh, Sourd Art International mhm. euh, tey da doon ñëw fii pour exposer pour exposer ay produits euh, ay ay ay objets yi nga xamante ne poterie lañ koy wax dañ koy def ak loxo ak suuf lañ koy liggéeye moom ak jëkkëram ñooy gérer GIE boobu ñu soxna si bëri na ci ndaw yi nga xam ni dañu amee laago googule waaye teewul tey jile ñu ngi daan seen doole di yëngatu ci wàllu poterie bi wala defar objet daar yi le li ñuy exposé aussi ay objet d'art la objet d'art yoo xamante ne xale yi ak moom si eh, dimbalam moom mooy defar eh, objet yi xale yi yenn yu ñuy defar aussi yu ndaw yi moo leen di jàppale su amee erreur wala eh, quelque chose comme ça. ñoom ñu ne ñu ci gën a bëri ñu tàggat leen ci maison des handicapés bu nekk ca Wakaam tey jii ñoom jàng nañu ba sax ñi ngi baaxi seen xam-xam. yeneen i xale yoo xam ni dañoo amee laago boobule. rencontré na maître Wade alors moom dafa foog ne woon que euh, objet yi day day jël ñoom dañ koy commander Europe pour indi ko di ko jaayaat alors que c'est pas ñoom ñoo koy defar euh, seen propre loxo ñoom ñoo koy liggéey alors day lancer message ko autorité vraiment ñu jàppale leen tey journée internationale euh, bu sourds-muets yi nee na am na ay difficultés aussi pour amuñu assez de machines. wala yenn yi nga xamante ne dinañ mën a defal seen objet euh, ni mu waree. te jii àddina gi yëpp di màggal ñi nga xam ne dañoo amee laago bile maanaam du ñu mën a wax ba pare du ñu dégg bu baax loole nag Sénégal desu ci gannaaw ministère de la santé et de l' sociale ñëw teewe bés bile ñoom ñu ne fi mu toll nii. bëgg nañu ñu jox leen ay jumtuwaay su ko defee objet d'art yile ak yeneen liggéey yu ñuy faral di defar ñu gën ko jëmmal ci àddina gi waaye tamit fii ci Sénégal Aminata Mbaré Sow leneen ñu yëkkati ko ci ndaje moomee ca place du souvenir muy nag léeg-léeg waaye laago yooyu bu ñu demee ci barabu fajukaay yi la docteur bay wax duñu ko mën a xam du am kenn euh, ku leen ko tekki loole nag la ñu bëgg ñu euh, taxaw ci euh, jëwriñ ji nga xamante ni moom la dénk wàllu wér-gu-yaram jamono ji nee na nag lu ni mel dina ci xalaat te itam dinañ fexe nu ñu ko mën a jëfee na mu gën a gaawee ñu teewlu Mamadou Lamine Fati moom mooy directeur bi nga xamante ni moom moo yore kon lépp lu soxal eh, aar àq ak yellefu eh, ñu waay laagu yooyu ñu teew teewlu ko ak Aminata Mbaye Sow. en dehors de la question euh, des statistiques wax nañu problème communication euh, communication boobu na tamit am na ay médias tey Sénégal yoo xamante ne bu amee événement yu mag da ngay gis benn interprète en langue des signes boo xamante ne dañ koy wane pour que suñu mbokk mu te mën a accéder au message waaye du média yëpp ñoo koy def mm-hmm. kon nag loolu muy wane ne am na limite bu fa nekk kon dañu war a yaatal liggéey bi pour que média yëpp. Euh, mën a intégrer dispositif boobu pour que système bi nekk système boo xamante ne il est inclusif nga xam ne du ñu beddi kenn suñu mbokk muuma yi ak ñu tëx ñi aussi mën a accéder à l' information xam nga bu ñuy wax ne dañu war a laata yaatal liggéey bi dañu war a euh, sàmm ak ak yelleefu muuma yi ak ñu tëx yi warul yem rek ci cadre statistique ak cadre tamit communication dañ ko war a yaatal ci yeneen secteur muy éducation muy tamit santé euh, secteur formation ak yeneen secteur économique mm-hmm. que ñu fexe daal surtout pour secteur santé euh, question ressources humaines ñu mën fa former ay interprètes en langue des signes pour que bu amee muuma boo xamante ne ñëw nañu mën a communiquer ak moom bu ñu tollee ci mat ñu mën ko encadrer euh, ba mu ba mu ànd ak sagoom ñuy dund sax ak waylaago ci euh, Sénégal seetlu gi nee nañ nag téeméer boo jël euh, ñaar ña amee nañu jàngoro ya euh, sida di ay jafe-jafe yoo xamante ne nii Sénégal mi ngi koy jànkonteel tey nag am naa lël boo xamante ne nii amaloon nañu ko lël boobu nag mi ngi sëgg rek ci xaatim bi nga xamante ni def nañ ko ci àdduna wërngal këpp ñu war a sàmmonteeg àq ak yelleefu waylaago yi waaye nag ba nëgë ni jëfe gi dafa des ci loolee nag la ñu amaloon ab taxaw seetlu Cheikh Tidiane Dione Abdoulaye Diallo. félicite. Aptitude moom mu ngi xamle ne ñii di way laago yi daanaka mën nañ ne 2 pour cent la ñu amee ci taux de prévalence bu sida. handicapé yi taux ba fa nekk moo gën a rëy taux moyen national ndax téeméeri nit yoo jël ci handicapé yi lu toll ci ñaar am nañu gis nañ ne am nañu feebar boobu te boo xoolee ci population général bi téeméeri nit yoo jël ñu ko ci am matuñu benn. kon loolu taux bu rëy la boo xam ne dafa indi njàqare. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk en situation de handicap nekk ci ay jafe-jafe ndaxte ñoom jàpp nañ ne ñoom ñoo gën a exposé li ko sabab bokk na ci li ñuy tuddee ay inégalité sociale économique et juridique loolu sax moom moo daal di tax ba ñoom daal jafe-jafe daf leen yomb. ñi nga xam ne dañuy dund ak laago lu si bëre euh, li ñu war def ngir ñu aar leen ci jàngoro sida bi defuñu ko lu tax lu si ëpp ci ñoom seen koom-koom bi demewul noonu lu si ëpp ci ñoom pour ñu euh, am accès ci euh, service yi dafay dafay jafe parce que xam ne boo buggee dem hôpital nga yore euh, chaise roulante wala nga yore béykat boo fu bëggee dugg dafay dafa am ay jafe-jafe. ci weeru mai ba léegi lii di loi d'orientation sociale ñu voté woon ko waaye nag lii di effectivité nekk ay jafe-jafe ñii nag di si sàkku. ñu taxaw ci seen dossier. en 2010 bañ ko watee handicapé yëpp a tàcc woon parce que dañ ne woon ah léegi day am nañ loi boo xam ne mooy aar suñu àq ak suñu yelleef waaye nag boobaak léegi gis nañ ne ci ay jéego am na naam waaye jéego yi dafa xaw a ndaw. étude bi nga xam ne def nañ ko ñu mën ko indi. ñu waxtaane ko ak commission santé ak commission des lois ndax commission santé moo am compétence ci wàllu euh, supervision politique en matière d'action sociale waaye commission de lois dafa am compétence ci wàllu protection des droits humains donc suñu ñaari commission bu ñu lëkkaloo war nañu mën a waxtaan ak euh, kuréel bu mel ni fédération nationale des personnes handicapées njiital euh, mbootaay gi ëmb kuréelu waylaago yi ci euh, Sénégal mi ngi sàkku nag ñu amal euh, conseil présidentiel ngir rek mën a waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni moom la waylaago yi di jànkonteel fii ci Sénégal ma Fall mu teg ci ne dañoo war a tamit amal fond d'appui maanaam ay koppar yoo xamante ni nii dañu koy teg rek ngir mën a xeex yalwaan gi ci Sénégal ñu teew lu ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Dione. handicapé yi taux ba fa nekk moo gën rëy taux moyen ndax téeméeri nit yoo jël ci handicapé yi lu toll ci ñaar am nañu gis nañ ne am nañu feebar boobu te boo xoolee ci population général bi téeméeri nit yoo jël ñu ko ci am matuñu benn kon loolu taux bu rëy la boo xam ne dafa indi njàqare loolu nag bi ñu ko jàngatee dañu gis ne li ko indi mooy boobu ba léegi autorité sanitaire yi ak ñiy xeex feebar boobu jëluñu woon en compte handicapé yi yaakaaruñu woon ne handicapé yi waroon nañ leen boole ci xeex boobu ñu doon xeex doomu jàngoro sida bi Euh, beneen bis euh, màggal nanu ko euh, tey jii muy nag bis bi ñu jagleel wàllug xibaar information ci àdduna Sénégal nag ñu ne bënn nëgë ni amagul nag loo xamante ni ab chart la charte rek bu jëm ci as bu charte boo xamante ni mën naa tax kon askan wi mën a jote ci information na mu gën a gaawee article 19 ak waa société civile ñu ngay wéy di xeex ngir loole nag mën a sotti bisub tey jii jëwriñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu yoon moom nangu ne naam ne nag charte boobee amagul. waaye nag dinañ ci liggéey ndax lépp lu jëm ci information askan wi euh, dañu ko war a jot ci anam yoo xamante ne nii xëy na anam yu gën la waaye tamit anam yoo xamante ne nii kenn waru leen nëbb yenn yi euh, rawatina nag taskatu xabaar yi nga xamante ne nii nag wax dëgg neex yàlla bu ñu ne information ñoom ñoo tax ñuy wax ñu teewlu maam ñu teewlu ñu ànd ceeg kon maam Biram Diouf ak ku munti doon ci doomu réew mi nga bëgg am xibaar goo xam ne nag soxal na la ci ñu réew mi sax di doxee loole nag ay jafe-jafe ñaareel nit ñi dinañ ko ci faral di am ba tax article 19 taxaw ngir ñu amal ci ab sàtt goo xam ne ni xibaar yooyu day jot ko dina ko yomb wute sax ak xibaar yoo xam ne nag doon na lu kenn warta wasaare. ñëpp dañuy wax ne pourtant fii am na liberté d'expression ñëpp a ngi wax mais loolu nekkul li ñuy wax accès à l'information tey dañu bëgg femme bi nekk ca village ba. bu xëyee suba mu dem si hôpital bi ñu ne ko dañ la war a transférer Dakar parce que da am nangam ak nangam mu xam à travers moom li muy def fan lay dem si dakaar bu demee lan la koy coûter lan yan lan ndax bu dee dafa am prise en charge bu war a am lan loolu mooy information yi ñuy wax. fi ñu toll ci loi bi actuellement mun naa wax naa la depuis 2008 projet de loi forum civil defoon na ko ak ay partenaires yu bëri assemblée nationale ci lañ bokkoon loi bi defar nañ ko mais bu ñu ko defaree aussi dafa fu mu war a jaar xëy na ñu ngi ci loxo ñi nga xam ne ñoo ko war a saytu pour que loi bi bu ñu ko yóbboo assemblée kenn du ci am ay nattable wala dindi li defal leen. journaliste yi ci liggéey gi ñuy faral di amit ñaareel jafe-jafe dinañ koy am bu desul leen lu am xibaar goo xam sax dinay tukkee moo xam ci administration bi waaye ki fi teewal ministre de la justice ne code de la presse bi loolee sax moom Dakar réglé bu ñu sukkandikoo nag ci jatu si mu nga xam ne ni journaliste yi ba tey ñu ngi amee jafe-jafe ngir xibaar ñu bëgg am ci administration yi te mu laaj ko loolee du antu. même bu dee naam sax négocier nga ba dugg. ñi nga fa war a fekk ñu war a wax ak yow boo leen laajee dañ la naan man mënumaa wax fonctionnaire la wala man mënumaa wax te sama kilifa joxuma ndigal mais li ñu gis ci code de la press bi mooy ne dafa am tamit ay ndëgg sërëx yoo xam ne quand am na ci biir ndëgg sërëx yooyu mooy gis nañ ne dañu naan bu dee information bi dafa sensible mën na troubler ordre publique maanaam mun na am ay jëya wala bu fekkee publication bi mën na indi rek rek ci rax euh, askan bi loolu gis nañ ne autorité locale maanaam préfet ba nekk ca gox boobu sax mun na ñëw tëj rajo bi wala mu tëj journal bi fii ci Sénégal donte sax constitution bi am na lu mu maye muy nag xibaar loole ñu jot ko am ci bànqaas yu bëri waaye am ab loi goo xam ne ni dina ñëw uuf lépp ba tey doon lu ñuy wut ay at a ngi nii nag acteurs yi ci yëngu di ci daw. Euh, Barthélemy Diaz nee na fas na yéene euh, kon samp ndëndam rek euh, ngir doon secretaire général bu parti socialiste ngir nag wéyal xeex bi nga xamante ni Khalifa Sall moom la doon xeex loolee la wax mi ngi ko fësal nag ci Facebook ci rubrique bu bees boobee nga xamante ne daf ko fent duppee ko les vidéos de Barthélemy Diaz analyste politique bi di Yoro ja moom na mu ko gisee rek nee na lu am solo la naam te nag mën nañ ko sax waxtaanee ci parti bi te bu ñu ca yeggee nag militants yi daañu taxaw rek. rek sëgg ci mbir moomee xëy na ci ab congrès sax lay doon Alassane Ba Mohamed Dieng. génn bu njëkk buzz bu njëkk ab annonce la def Barthélemy Diaz sàkku poste secrétaire général bu parti socialiste ca atub 2019 analyste politique bi rafetlu stratégie bi mu jàpp ne débat bi ci jamono ji taxaw na biir formation politique bu Léopold Sédar Senghor. bu dee da ngay jàng science politique parti socialiste. dafa bokk ci parti yi nga xam ne Sénégal bëriwuñ nag mën nañu wax parti politique la parce que Senghor jiite na parti bi dem parti bi tasul mu jox Abdou Diouf Abdou Diouf jiite parti bi lu mat ñaar fukki at dem bàyyi fi parti bi parti bi tasul tanoon na ko jiite te allah kulli xel bu tanoon bàyyi parti bi tamit keneen dina ñu jiite ko yaakaaruma ni PDS dina mën a egg foofu. yaakaar mu aussi APR euh, aussi euh, bu fi magi bu fi yi jugee dina ma dina ma mën a egg foofu donc parce que dafa ma nekk parti boo xam ne dafa mas a am ay débat en interne dans les années quatre-vingt-dix moom moo posé débat interne nii ligne bi Abdou Diouf ak Tanor Dieng man d'accord uma ci ab seetlu la def parti politique yi fii ci senegal nuroog tarixa Yoro Dia jàpp ne débat yi dafay faral di néew ay initiative yu ni mel nag danay soppi doxalin ab congrès ngir fexe ba tranché. comme am carte de membre parti yow saa yu ñooñu moom parti militant yi dafa wax militant yi yéen atte leen mbir mi est-ce que yaakaar ngeen parti Senghor parti Abdou Diouf ñun ñi créé état créé nation est-ce que suñu cër la ñu nekk ay dunguru ay suq APR wala euh, beneen tendance bi ñi ànd ak Tanor dañoo ni non ñun duñ ay dunguru euh, dañoo àndoon ak Macky ci benn coalition ñu xeex ba jël fa Ablaye Wade donc ñun duñ ay dunguru donc ñun ñoo gagné ak Macky donc c' est normal que ñu gouverne ak Macky mais loolu nag lu koy mën a arbitrer mooy militant yi. booy xool ñu démocratie yi société civile bi moo ci gën a dominer te loolu du yoon parce que parti politique amul débat. Mm-hmm. parti politique pour mu am débat il faut que ki jiite parti bi xam ni moom du yàlla du yonent. candidat yi nag war a respecté ci njeexital règle de jeu yi Barthélemy Diaz fas yéene jël doxalinu PS socialiste bi nga xamante ni ci jamono ji dafa engagé wu ngir ñu bàyyi député maire Khalifa Sall. fas yéene doxalee neneen bëgg ñu koy dégg léegi biir rubrique bi muy duppee les vidéos de bi Dias mu koy amal ci Facebook woote njiitu réew mi ci euh, diisoo ak kujjeg euh, politique gi euh, ñi far ak président Macky Sall ñoom ñu ngi koy rafetlu te ne nag noppi nañu ngir woote woowee ngir kon waxtaan woowee mën a sotti waaye lañu ñu naqarlu rek mooy na maître Abdoulaye Wade taxawee ci mbir moomee analyse yi nag ci wàllu politique ne waxtaan woowee nu am solo la ndax loolu sax mooy mën a tax kon ci faluk njiitu réew mii ñu dëgmal di 2019 ñu mën ko def nag ci jàmm salaam Abi Faye Yunus Diatta Je reste ouvert au dialogue. Je suis un homme de dialogue. Un woote gi Abdoulaye Wade xalaatu ko dégg benn yoon. ay ñooñu Macky sàll gis na li ni mel lu war la. su bëggut a dialoguer affaire am la. waaye moom appel bi du moom rek lañ ko lancé appel bi classe politique bi yëpp lañ ko lancé classe civile bi classe religieuse bi donc Abdoulaye Wade su ñëwut benn picc du yàq ndaje. dialogue national nekk ab penco yoo xamante nit mu jëntal ga lu baax la war a doon tey jii Abdoulaye Wade xalaatu ko dégg benn yoon chroniqueur politique bi gis ne réew mee ko soxla. waxtaan bi nga xam ne daal bëgg nañ ko def ñu teg waxtaan bi rek ñëpp ñëw bu ñëpp ñëwee ba toog na ñu def agenda maanaam ne waxtaan bi lii mooy njeexital bi waxtaan bi nii lay amee ana nii lañ koy defee buñ àggee ba bés sàngam wala bërëb sàngam fii la ñuy waxtaan bi di ñu xam ne boobaa dinañu am li ñu woon ci waxtaan wi. ku nekk ci ñoom ñaar di ngaa ñi yorinu Ablaye Wade. kii ak ñaar yoo xam ne gis nañ li nga xam ne def na ko ci wàllu woowu ah, gis nañu ne bu euh, constitution bi nga xam ne mooy charte réew mi laal na ko lu bëree bëri bëri bëri bëri te mosuñu fàttaliku benn yoon bu mu nekk opposition bi ku jógi kaay ñu waxtaan. li muy tuddee pexe bu ko mën a du moom du Macky du ko mën a tëral. parce que moom tëral ko woon ñi nga xam ne bëgg nañ Sénégal jëm kanam dinañ uy si Macky Sall parce que ñoo doon demandé mu mu woote dialogue dinañ ko uy si def dialogue bi. présidentielle 2019 yi la ca des bëreetul dialogue politique doon lu réew mi soxla ngir climat social bi mën a dal waaye itam élection yi mën a jaar ci yoon ngir ñu mën a moytandiku mbiccoo mbaaloo gi ak njuuj njaaje ca war a mën a am. Je suis de dialogue, un homme Euh, coowal suuf ca commune bu euh, Dodel ñaar fukk ak euh, ñett dëkkee na ca commune ba danoo lànk nag ne projet Afrique Partners ba ñu fa bëgg a tëral du ca dal gannaaw bi nag ñu daal di rek amal ab ñaxtu gendarmerie nag teg loxo fukk ca ñoom bokk na ci imam ba nga xamante ne nii ay atam toll na ci juróom-ñeent fukk ak ñeent ñu teewlu ci almaami Sirel yi moo wax ci seen kàddu ci micro Ousseynou Diop ab Abib Seck. mu ngi am 97 xoolal loolu mag bu toll noonu ñu koy convoqué pour des problèmes de terre pour des problèmes banals ñun ci d'accord duñ ci tey duñ ci euh, euh, suba ñu ngi lancé un appel au chef de l'État au gouvernement de mettre fin à ce projet nañu dakkal affaire bi li am li am na sinon bu ñu bu ñu deful loolu leneen lu gën a garaaw dana dana dana dana dana jur lu lu lu ëpp loolu. mobilisation bi tey suba bu ñu bu ñu bu ñu keneen aussi dañuy yebaat fii ba affaire bii di jeex na fu mu yem baax na pare wuñu ëllëg fii ba Ndakaaru on est tout cas à défendre nos terres suñu suuf si kenn du ko joxee noonu duñ ko jox tey duñ ko jox ëllëg na affaire bi arrêté. kooku wax nañ ko lancé nañ appel bi ci chef de l'État c'est pas la première fois ñu koy wax war nañ ko presse bi yëpp wax nañ ko même à l'étranger les gens sont au courant ñëpp yëg nañ ko donc li li laay war a suul yi nañu arrêté affaire bi ñeneen ñi mer nag ba wane ko muy askanu askanu euh, Goudomp ñoom it wàccoon nañu ci mbedd la ñu bëgg nag mooy ñu ubbi euh, post de santé yu euh, Samin nga xamante ne nag la ko tëralee toll na ci benn milliard ak poste de santé bu Goudomp nga xamante ne nii juróom-ñetti téeméeri million la ñu ca def li leen gën a metti nag mooy limu doomu aadama yi nga xamante ne nii dañuy faatu ndax mënuñoo jotee ci am paj mu mucc ayib la ca gën a metti te tamit ñu bari ci aji tawat ga dañ leen di rawale ba Sikicoor Bakary Konté Goudomp nekk ville morte boutique yi magasin yi daal di tëj seeni buntu dara doxul ci Goudomp marché central bi ak service yëpp tëj seen buntu loolu nag mer bu lu ko waral population yi daal di doxantu ci mbedd yi ak seen brassard rouge di ne nag dañuy ñawlu ay nit yoo xamante ni ñooy faatu ci Goudomp ak ñoo xamante dañ leen di évacuer si Ziguinchor. ñoo ngi construire suñu hôpital bi mënuñoo fexe ba dugg ci faju wala leneen heure bu ñu demee ci district bu ndaw bi bu ñu amee ay évacuation yenn saa yi bala ngay yóbbu sa malaat mu des si yoon bi wala bu dee jigéenu biir bi nekk si matu mu matu wasin si biir ambulance yi wala bu eggee day fekk ba kanam dem na léegi nag bu doon suñu sagoo ko nag président Macky Sall taxaw ci ubbil ñu suñu hôpital bi ba bu ñu natee dem ba ay longue voyage yooyu di yóbbu ay malade ñu mën a yem ci suñu biir gox ay malade faj leen ni ñu war a faje moo gën hôpital bi tegoo te suñu ay toujours ñu ngi jël suñu ay malade di évacuer di yóbbu Ziguinchor ñoom nag lu ñu bëgg ñu daal di ubbi si gën a gaawee centre bu santé bu Goudomp ak tam bu Samine ba léegi nag centre de santé yooyu nekkul di fonctionner. centre de santé centre de santé département bi bi nekk Samine ak Goudomp travaux yi na depuis 2004 war na jeex au bout de 18 mois travaux yi war na jeex a bout de 18 mois mais fu ñu toll ñu ngi douze ans fukki at ak ñaar ba léegi travaux yi mënul jeex hôpital yi mënul tijjeeku te population yi sonn nañu département bi évacuation yi dañoo bëri poste de santé fi ñu nekk actuellement ñoo xamante ne loolu la ñu soppaliku def centre de santé dañoo xat hôpital maladies yi mënuñu xaj si mënuñu xaj si centre de santé bi dañ leen évacuer fréquemment à Ziguinchor surtout jigéen ñi ñoo si gën a sonn si benn at rek 392 jigéen yi ñu jot a évacuer. bu ñu jógee nag si centre de santé yi manifestants yi dañuy dem ba ci préfecture bu Goudomp. ñoom nag ci lañ daal di déposé benn mémorandum ci préfecture bi. jaajëfal ko bu baax Bakary Konte yéen it sant nañu leen gërëm leen ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram leen xibaar yi ci nasaraan lay doon jaa ngeen jëf.